jërëjëf population de Diourbel. maa ngi leen di nuyu. di leen sant di leen gërëm. di rafetlu seen accueil. ñun ñu ngi jógee Gossas ba tey. nit ñi bàyyiwul ñu yegg si fii. dama ne bi ñu jëlee Gossas ba tey nit ñi bëre ñu yegg si fii jërëjëf merci aux populations de Diourbel. su ma jëlee Diourbel aussi dafa am lu bëri lu may fàttali. Diourbel fii la jàngee liggéey. bi ma génnee école. Ousmane Sy ak kon xam naa tur bi bu baax a baax a baax. dinaa ñëwaat léegi ci Sonacos ndax bi ma fi liggéey Sonacos ak fi woon ba léegi gisuñu bu fi ay tunisien bu fi woon di defar aliment de bétail. monsieur le maire Malick Fall di sama xarit di sama kóllëre di nit bu bëgg maa ngi lay nuyu di nuyu monsieur le ministre Dame Diop maa ngi lay nuyu bu baax di la sant li ma duggee Diourbel ba tey maa ngi yow a ànd di nuyu ma sœur sama xarit moom moom yàgg loolu nekkoon ministère des finances muy ku yaru ku am compétence muy madame Guèye Fatou Diagne Sénégal yëpp xam nañ ni sama nit la sama xarit liggéey bi ñu boole woon ministère des finances ma ràññee ko ci biir ministère ci yar déglu ak am xam-xam ba tax j'ai pas été surpris ni dox na ba ñëw nekk ministre. may nuyu ministre la santé docteur Marie Khemesse. Docteur Marie Khémesse, qui est très engagé pour la santé. kon maa ko xam ne ràññee ko bi si mbas bi duggee mu nekk ci biir bërëb bi ak détermination bokk ci ñi jàppale Marie Khémesse merci. Benni Moustapha ci Moustapha um ci Fat Diagne kon mënoon naa jóge ci Fat Diagne ñëw ci Moustapha moom naa sama rakk la Moustapha di ko engagé bu baax bu yiw may nuyu honorable député Cheikh Seck Cheikh di militant bu engagé Cheikh di bu am fit nekk assemblée bokk parti di jàppale président Macky Sall dans le cadre du Benno di ko def ak fulla ak fayda ak ak cofeel xam nga li may wax. dañ ñuy jor may député di nuyu Souleymane Soumaré di nuyu Ndiogou Mara Ndindi Pape Modou Fall Serigne Moustapha Abdou Koumba Cissé Thiam Hassan Abdou Diagne Pape Diagne Thierno Diop Sadio Diakhaté tous les maires Abdourahmane Li li tax ma tuddee ñoom ñëpp unité benn bopp fu ñu ko defalee yi ci gaañ ñoom ñëpp ñoo ngi kilifa décidé ñu ànd pour gën a fexe ba Sénégal dana tàgg ci loxo suuf si seen i tubaab yi ñu nekk fii ci biir Kaolack. jumaa ju mag ji nekk fii. moom Thierno Kane ji nekk am nañu yaakaar sincèrement yooyu dëgg la président. Diourbel nag Diourbel nag am na loo xamante ni dafa bokk dafa bokk Thank you. jërëjëf jërëjëf may nuyu Serigne Abdou Karim di suñu Serigne ku tudd yaay bu bu tudd Serigne Abdou Karim tur benn bu gënaaw ñu réglé ko fii damaa bëgg lépp daal di daal di Sénégal foo mën ci dëkk am na fekk la fa ndox mu neex fekk la fa. su ma nee jëndee ndox te am ñaar rek dama mën bëgg a wax ne xam naa jëndee bu baax la. fii ak ñaar yàq. fii ak ñaar yàq. dox mos am lu mel ni mën a Dakar danañ ko mën a encore. li nga amee ndox rek am courant. boobu nag lay mën a jublu ci xale yi. Ah. boobu lay mën a jublu ci xale yi. xam nga yéen. dafa am yoo xam ne fu ma doon waxee ndax dama bëgg seede man dama bëgg nekk président de la république de l'emploi des jeunes. vingt yéen vingt yéen vingt yéen yéen ak man vingt yéen. nga liggéey xam nga liggéey dañ koy teg ci yoon. mënoon naa ñëw rek na leen emploi des jeunes loolu amul sens. ñun suñu coordinateur a ngi nii Karim. donc bu ma leen nee. ñu ngi nii tëj de. dañuy defar courant mu ñëw ba fii lépp ndox mu neex ñëw ba fii suuf si. boor bii dafa xaw a bari xolam tuuti. dinaa defar bu mag boo xam ni day yokk doole ak kattanu suuf si. honorable Cheikh Seck yàgg ñu jàmbat lu mel noonu assemblée nationale. day tàmbali ren. ban mooy bés mais ñoom ñu ne am ngeen courant am ngeen ndox ban mooy bés liggéey emploi li ñu des mooy emploi li ñu des mooy emploi bay ko bay bay ko moom bay ko moom yi ñoo dee dañoo faral dañoo faral ndaw ñi parce que ndaw ñi du avenir c'est le présent la jeunesse n'est pas l'avenir du Sénégal c'est le présent du Sénégal moo tax dès le mois d' avril waaw ci yéen lay jublu ci yéen lay jublu pour que les questions liées à l'emploi ensemble mais dama ñëw ba Diourbel te dama rendre hommage te dama rendre hommage à Fatou léegi liggéey bi wax financement bu baax la léegi bi ñuy wax DER dafa am loo xam ne ban moom ñoo ko tàmbali dama ñëw ne ko Fatou gis naa nga def thèse sur le financement dama bëgg ñu def test pour Parcelles Assainies dama bëgg ñu utal financement mu xool ci juróom weer ndax bi la ñu jógee ci pauvreté ma dégg fa projet bi mu defal ko fa Parcelles Assainies mu am succès lool ñëpp di ko ràññee loolu moom moo jur délégation à Fatou, je ne peux pas venir ici et ne pas te rendre hommage pour ce travail qu'on a fait ensemble te boobu kenn xamuloon ni deer dinaa ñu liggéey ci at je fais un rapport au président président ne ma c'est tellement intéressant que je vais mettre 30 milliards foofu la projet bi jógee fii nag gerte daf fi bari

ay doomu Bawol di fi liggéey wala ay doomu Ndakaaru wala ay doomu Saalum am ngeen potentiel fi ma koy jaaree fi ma koy jaaree wax naa leen huile wax naa leen suuf wax naa leen ndox wax naa leen courant mbay moom la gën a toll foo xam ne foog ñu transformé bu boobaa la nga doon jàmbat ci Sonacos donc donc bu tees yi SNUP 2014 2015 avec Sonacos dina ubbi waaye yeneen ubbi yoo xamante ni waa doomi Bawol dinañu wutal financement parce que dinañu am banque bu mag di jàppale Sénégalais yi di jàppale émigré yi banque boobu fii ak ñetti juin dina ñëw docteur Marie Khemesse yàgg na wax nag dëgg na hôpital bu mucc ayib fii ci biir Diourbel dëgg la hôpital Mouké def na fi am solo dem dama ba doon xam naa bawal bu baax kon maa ngi yéen du ma làmbatu famille tout brille. oui président oui oui. Marie Khemesse Dame Diop Diourbel aura un hôpital de niveau 3. lii ñu am Touba am Ndakaaru dinañ ko def fii parce que bëgg ci ni kenn ci réew mi booy fari ji di dox. mën a jël oto di dem vingt kilomètres wala trente kilomètres kon fii dañoo bëgg mu nekk un centre urbain bu am solo donc il faut que hôpital bu mag ñëw fi fàttewuma waa Mbacké fàttewuma leen Mbacké mooy département bi gën a rëy ci Sénégal Mbacké fi mu nekk nii pour ñu jàppale leen li nga xam ni moom mooy équité maanaam ni ngi jàngoo hôpital bi am Mbàkke bi am Touba foog bi dafa mel noonu biir Mbàkke école yi am Touba bi def loolu biir Mbàkke bu ñuy toppatoo mbënd bi Touba foog mu toppatoo ko noonu Mbàkke toppatoo ko noonu Diourbel xam naa ne le monsieur le maire Malick Fall maa ngi di sant di leen dimanche dimanche bu ngeen xëppee doon voté bu ngeen voté ñëw jubile parce que fan ngeen Amadou Ba président de la République merci